ndax indaale nga taalif boo xam ne ci daara nga ko def. boo xam ne ci daara laa ko def waa am na am na fu ma ko dugal nag. am na fu ma ko dugal daa am fu ma ko dugal foo xam ne. Mhm. ci daam daam ku may tontu ba dugalaale ko ba dugalaale ci daara foofu. ba dugalaale ci daara. waa d'accord kon boo ñu ci tegal kon. léegi <clears throat> est-ce que du la est-ce que du la jox boobu sax. ban ci daara yi. mooy waa ji may tontu. ayca bismillah moom lu ki nekk ensemble naan Diomaye fay gëmut tariixa gëmut diine. kii Mbaye xaw ma nan Cheikh Mbaye la xaw ma. waaw waaw. ah waa jooju da ngaa def ci moom taalif. waaw ndax nee na. <laughs> ah diggante bu gàtt bi bind nga ci taalif. bind naa ko ci man damay siifur actualité soo bu yow seen seen site bi dama koy seetaan. Mhm. wal fajiri. Mhm. yaakaar naa plateau yi may seetaan xanaa ñu jógee ci yéen ñu invité leen faneen ma seetaan leen. waaye ñaari seen yi laa am. alhamdulilah. di leen seetaan. ndeysaan. wala yow nga dem beneen télé ñu invité la. ma seetaan seetaanuma de waaye yow laay seetaane ba xam lan ngay wax foofa dégg naa la comprendre wala Cheikh Baara Ndiaye ñu dalal ko faneen ma dem seetaane ko ndax lan lay wax foofa alhamdulilah mais bu dee seetaan moom yéen laa ko am te lii may wax ci yéen laa ko xellee déggal lii ndax yéen a jàpp yéen a jàpp waa ji indi indil ñu la mu wax ci ensemble après nga ñëw ci actualité bi ma ñëw ci actualité bi kon bisimilah ñu bàyyi la nga ñëwal ñu ci gannaaw bi mu waxee ne Diomaye Faye mhm. euh, euh, salafis la lan ko tontu ma tontu ko wax ju riis te bul ma pelente noo la pelente mu diis la <laughs> nee nañ amul diine moo tax waruñu koo tànn ba tax damay laaj ñoom sax fuñ xamee diine nee nañ amut diine moo tax waruñu koo tànn ba tax damay laaj ñoom sax fuñ xamee diine da ngeen am diine kon yéen kaay ma fàttali leen ci ñi ñu tëj ci sëriñ daara ci waa diine da ngeen a am diine kon yéen kaay ma fàttali leen ci ñii ñu toj ci sëriñ daara ak ci waa diine da a am diine kon yéen kaay ma fàttali leen ci lii fi xew fee ca Israël Palestine da a am diine kon yéen kaay ma fàttali leen ci lii fi xew fee ca Israël Palestine da am diine kon yéen kaay fàttali leen ci ñii fi jëf jëf ju ñaaw jii nii ci biir diine. dangeen a am diine kon yéen kaay ma fàttali leen ci ñii fi jëf ju ñaaw ji nii ci biir diine dangeen a am diine kon yéen kaay ma fàttali leen lu tax ku jóg tey rek ŋàññi waa diine da a am diine kon yéen kaay ma fàttali leen lu tax ku jóg tey rek ŋàññi diine da ngeen am diine kon yéen kaay fàttali leen lu leen teree criminaliser ngóor jigéen ci biir réew mi dangeen a am diine kon yéen kaay ma fàttali leen lu leen teree criminalisé ngor jigéen ci biir réew mi dangeen a am diine kon yéen kaay ma fàttali leen ci nit ñu réew toog di saaga ay kilifa diine dangeen a am diine kon yéen kaay fàttali leen ci nit ñu toog di saaga ay kilifa diine da am diine kon yéen kaay ma fàttali leen bu yàggutoo lañ fi rey ñaari sëriñ daara da ngeen a am diine kon yéen kaay ma fàttali leen bu yàggutoo lañ fi rey ñaari sëriñ daara da ngeen a am diine kon yéen kaay ma fàttali leen lu leen teree julli lu leen da ngeen a am diine kon yéen kaay ma fàttali leen lu leen teree julli jotee ngeen bàyyi ans ngeen bàyyi sàmbule bi da ngeen a am diine kon yéen kaay ma fàttali leen lu leen teree julli jotee ngeen bàyyi sàmbule bi da ngeen a am diine kon yéen kaay ma fàttali leen lu leen tere atte woo waxi borom suuf si dangeen a am diine kon yéen kaay ma fàttali leen lu leen tere atte woo waxi borom suuf si dangeen a am diine kon yéen kaay ma fàttali leen ci lii ñu jiiñ sonko mii nii nag ci biir réew mi dangeen a am diine kon yéen kaay fàttali leen ci lii ñu jiiñ sonko mii nag ci biir réew mi da a am diine kon yéen kaay ma fàttali leen ci ñuy ci ñi ñu rey ñépp nag fii nii ci biir réew mi da ngeen a am diine kon yéen kaay fàttali leen ci ñi ñu rey ñépp nag fii nii ci biir réew mi dangeen a am diina kon yéen kaay ma fàttali leen bu yàggutoo lañ fi génne rapport ci biir réew mi dangeen a am diina kon yéen kaay ma fàttali leen bu yàggutoo lañ fi génne rapport ci biir réew mi da am diine kon yéen kaay ma fàttali leen bu yàggutoo lañ fi ñàkk Fulbert ci biir réew mi da ngeen a am diine kon yéen kaay ma fàttali leen lu leen teree aye mbon ngi nii ci biir réew mi da ngeen a am diine kon yéen kaay ma fàttali leen lu leen teree aye mbon gii nag ci biir réew mi Cheikh Souhaïbou macha allah sëñ loolu la daga nga doon def di ko tontu. xëtu daal ci di tontu waa euh, député bi nekkoon ensemble tey wax ni jomaay euh, salafiste la mu mel ni. Mhm. am na ay laaj yu bare bari yoo samp laaj da nga koo samp ngir tiiñal wala da nga koo samp ngir wax waa réew mi ni leen ndax mhm. dégg naa ci sa communication bi communication bu nuroog bu Baye Assane mhm. ndax da ngay laaj waaye dafa mel ni da ngay da nga dafa am loo teg ci réew mi ñi mhm. lii lépp a ngi lu ngeen ci def ak fu ngeen ci toll maanaam da ngay tiiñal wala da bu tey ndaw ji dañ ma wax ne ma yow lañ dénk suñ kàddu ca assemblée au lieu man ma taxaw taxawal ndaw ñi foofu ma lay xas ne ma lay xas ne yow ne la amoo diina ah waaw waaw waaw. man waxuñ ma waxuñ ma demal nga wax fekk am diine ko amul diina di. dëgg waxal problème yi ndox mi neexut baaxut nañ ci ndox mu baax ñu man a naan. Mhm. xiif nañ mënuñoo lekk wax ko. dëgg la léegi ñun ay jullit nee na xam nga moom jullit la. Mhm. te dafa war a. ah moom loolu la wax da nee na jullit la de. waaw mhm. kon nit. jàkkaaroog sa moroom jullit buy wax ashhadu an laa ilaha illa allah nga taxaw ne ko yow doo yow gëmoo diine gëmoo diine doo dem ci kër sëriñ si hmm. ah yow léegi yow mi koy wax yow yow est-ce gëm nga diine ak it ndax fa nga nekk diine nga fa taxawal ah ak it fa nga nekk diine nga fa taxawal yow fa nga ne est-ce nga fa taxawal hmm. bu fekkee diine nga fa taxawal assemblée hmm. boobu ba léegi mi ngi daw suñ bokk euh, Palestine yi Israël li ñuy dox ci ñoom kenn waxu ci waaw bëggoon naa laaj loolu tax loo ci dugalee Palestine gi nga ci dugal. waaw moom diine moom diine lay xeexal. waaw Palestine daa nekkul diine. waaw ñu ngi leen di torxal de. bu dee diine ngay xeexal yow seex boo taxawaatee ci sa micro assemblée national waxal waa Israël li ñuy def Palestine ñaaw na lool na ci àddu. Mm-hmm. na ci àddu donte nag sa kàddu mën nga koo àddu ba pare ñoom duñ ko jëfee. Mm-hmm. waaye defal sa devoir maanaam. wàcceel sa àq ci wax ji nga war a wax ci Palestine ndax Palestine ay julli lañ comme ñun dëgg la nee nga dangaa am diine kon te nekkal nekkal nekkal assemblée boobu nga nekkal fi ndaw ñi lu la teree boo déggee ñu ne rey nañ ñaari sëriñ daara boo taxawee ci assemblée nga kaasal ñu ñun ñun sëriñ daara yi ndax ñun génn ñu diine. ah rey nañ ñaari sëriñ daara. waaw waxoon naa la ko benn bi yaa ñu ko indil. benn bi maa ngi benn bi yëngu internet bi waaw waaw. Mhm. ñaar ñëpp dañuy jàngale alxuraan alxuraan génne da nga ko mën a génne ci diine ñiy julli alxuraan la ñuy tari sëy ba alxuraan la ñuy tari néew ba alxuraan la ñuy tari ki gane sa àdduna alxuraan la ñuy tari kon alxuraan mi ngi ci biir diine kon yow Cheikh kaasal ñu ñaari sëñ yooyu ñu ñu ak ñu tëj ci kaso bi danga am diine kaso Jurbel bii hmm. ay sëñ daar yu baree baree baree nga fa tëdd waroon naa laa bindal sax list jox la ay tur cité la ay tur yu bari. ndax ndax ndax Amadou Amadou Baas. taalif na ko. waaw moom dina ñëw sax incha allah def na ci taalif. Mhm. dama ko bëggoon a jël tur yëpp noté ko ci kayit ñëw wax la ko. incha léegi ñooñu ñëpp ñu tëj te yow nga nekkal ndaw ñi ci ensemble bi te waroon a jug dugg ci dëkk bi xam li xew ci dëkk bi taxawaat ensemble xeex ko jooy ko defoo ko nga topp benn nit boo xam ne moom xeex ngeen ko moom ne ca kaso ba nga taxaw naan amul diine. kooku desalatoo ko dara de koo xam ne xeex nga ko ba mu dugg ca kaso ba ndax Sénégal li gën a rëy ñu teg ko nit mooy tëj la kaso. waaw bu ñu la tëjee pour ñoom kontaan nañ. waaw jii boo taaloon assemblée bi. Mhm. taal président euh, fa mu nekk ah. <laughs> taal président waaw. maam président président de la République fa mu nekk boo ko taaloon. duñ la rey. duñ la fees. duñ la def dara liñ gën a man te war la koo def mooy tëj la kaso. léegi ki nga tëj kaso pare wëlbati ko naan ko gëmoo diine. ah fa président nekk nag ku ko jéem a taal dañ lay. kaso yi gën a sedd ci li lay dal de. non kenn du ko taal sax. ndax ah. jamono ji moom. parce que loolu nag ak ambiance nee na jàmm la wote ak ambiance. ñun jàmm la wote ak ambiance. ah loolu laa dégg Sonko di wax man xanaa xamoo man bu ma doon dox ba fakk sa lu ñu xeer du ma ko ànd ndax du ma ko àndale ndax damay bañ àndale ko ñu ne may trouble à l'ordre public. Ah. bëgg jàmm rek. jàmm ngeen woote. boo ma daboon ci mbedd bi nii xët ma. Hmm. boo ma xëtee damay gëstu reetaan génneeb junni jox la 2024 rek. ndax lan bëgg jàmm jàmm rek <laughs> Sonko ko wax nga togg say jën ba mu xeeñ nga génn tuur ma te ma war a dem àjjuma damay tourné defar jiwaat soliwaat yeneen yére waaw ah. ñëw ne la 2024 rek ah képp maanaam daal xeexoo xuloo xeexuñ xuloowuñ gajjewuñ xusewuñ màttewuñ kobasuñ mbaadu sax almet li nga koy jënd bareetul man dama bàyyi naa taal garab yow ndax bëgg jàmm bàkk suñ tubaab bàyyi naa rek <laughs> ñaari semaine ngi ni teeluma garab yow wallaahi asim xuma semaine garab yow taalatuma ko. sooy bàyyi bàyyi. café sax bu ma ko tàngalee fa ma koy dugal damay fexe ba ba fexe suba ba ngoon muy tàng te dem bëgg bëgg bëgg ma di ko tàngalee jiwaat ci gaz yi. Ah, benn yoon nga koy tàngal. ci ci bis bi. boo paree def ko foo xam ne da koy téye ba ngoon da koy ngir bëgg jàmm. Hmm, ngir bëgg jàmm. ce que. nee na moom daa am diine. waaw ah. kilifa diine yi ñuy saaga moom. Mm-hmm. bu dee moom moom gëm na tarixa nee na jëmale fay gëmul tarixa moom bu dee gëm na tarixa mm. kilifa diine yi saaga ay kilifaam ñi ngi ci dëgg la lu teree génn mu kaas. te assemblée. te ñuy saaga bàyyiwuñ murit wuñ xaalis ba ñëpp lañ maasale. te musuma gis ñu ñu kaas ko assemblée daan ne ñee ñàkk xor ma kilifa diine musul am. mosul am. waaye nag ca biir assemblée kilifa diine gu mag ñàkkee nañ ko fa teggin. ñu toppee ñooñu ba war leen génne sax am ñu am ñu dem di ko kaas ñu jël noonu tëj ci kaso bi. ñoom dañoo kaas ba toj kaas. Hmm? te fayuñ kaas. ak ñoo ñàkk sens. wallaahi. man looloo ma neex ci yow da nga mën a riim da xam fi ngay fekk si nit da nga dégg <laughs> yàlla la yàlla defal jàmm. amiin yu bokk incha allah. nee ñoom dañoo am diine. Ah. kon ñoom lan moo tax nga gis maam nga gis ku tabax jumaa ba pare imaam yee xeex ak yooyu ban tëj ko ba police am ci yoon. waaw xam nga loolu wurtoon a am. te ak bari jàkk yu ñu tëj ak jumaa. waaw police am na bu yàggutoo yéen génne ngeen ko ci seen jomet bu sell bi. Mm-hmm. ba police am ci yoon tànn na imaam bi nii ngay jiite boo jiitee ñaari fan ëllëg beneen imaam ñëw jiite ñaari fan te loolu warutoon am ñoom buñ ko xeexoon woo imaam yooyu waxtaan ak ñoom police du ci am yoon bu ñu xamoon ne lépp lu ñu naqari bu ko benn député déggee dana dugg biir ensemble. d'accord kon télé yi sax mën nañooy waxtaan mën nañooy waxtaan ni rek waaye duñu waxtaan doo dégg benn problème ndax xam nañ ne tey jii tele yi ensemble ñoo leen gën a féete ndax ensemble lu fa yi danañ ko indiwaat. d'accord macha allah kon man sa am diine gi daal. d' accord jaaxal na ma lool xam naa boo amee sama numéro nga wax ma nga wax ma sa sëriñ daal. incha allah ma koy siyaare. <laughs> jërëjëf euh, sëriñ aboo Oustaz euh, Abo Diop euh, di jàngalekatu alquran wax dëgg yàlla di ndaw nag di jàmbaar lool am xikma moo tax nag bëgg naa sax daal même cour particulier yëpp gën a yaatu gën a am solo bu ko defee la ndax keroog dafa maa woo ni ma Diop damay dem ci gaal yi man ne ko lu tax mu ne ma daara ji doxut ma ne bul dem ci gaal yi toogal yëf yi dana neex waaw bul dem ci gaal yi mun ma damay dem ci gaal yi. noo dem rek ah gaal yi non bul dem. non gaal yi gi may gis gars yi da ko rek gis naa sa benn sëriñ daara di laaj naan la njàngam li mu doxut damaa bëgg a dem ci gaal yi. non faa kooku maa moom ànd. non bul dem baal rek toogal. ah bu ngeen bëggee daal saa yi. non non toogal rek bul dem. su ngeen su bëggee. ma toog waaw yéen mag ñi fexe leen defaat jàng du wees. ma ñëw di leen jàngal. ñun de ah. waaw yéen mag ñi. waaw ah, Assane waxoon na ko de. jàng du wees <laughs> yaa ngi may fàttali ki wax naan kaay leen jënd ci li ma yor mbaa ma dem ci gaal yi waaw wala mu ne kaay leen sama passeport mbaa mbaa ma dem Nicaragua ay